bu ñu fi toogee nag ba commencé nag loo amit ñu jox joxoñ leen kon baye boo ñu def seen képp tolluwaay kàttan surtout ministère d'infrastructure comme El Malick Ndiaye def kéem tolluwaayu kàttanam ba nga xam ne alkaati yi nekk ci tali bi danañu def li ñu war a def ñu leen di taxaw di leen fay salaire bu baax mais di leen teg bët kuñ ci ger wala ñu jàpp ne mi ngi noonu nit ñi tamit am esprit di dénoncer parce que loolu moo am sens te am nañ njiitu réew moo xam ne mi ngi protéger lu ñuy wax les lanceurs d'alerte kon mbir mi mi ngi gën a yomb kon d'ici mhm. dana ñu gis ay net amélioration ci côté boobu mais en tout cas moom bu nit di tolérer si sécurité même client boo xam ne da dugg ci transport en commun mu surcharge même bu affaire yi defee jéyee même yéen clients yi ci mucc bu ngeen muccee ba pare ba tal ko war nañ leen a teggi daal parce que kenn warul dugg ci oto. gis muy surcharge. Hmm. nga ciy yéeg wala te dénoncé. justement ñu jël nit ñi. ci seen ay responsable loo fekkee lu hmm. nekk. Hmm. ñu xool sa lan moo ciy sa responsabilité. parce que li ñuy wax nii yëpp même benn incendie bu tàkk war nañu mën a xool est-ce que du défaillance technique est-ce que câble yi. yañ fa tegoon. yu baax la est-ce que les modulaires. est-ce que ñu ngi ci nangam ak nangam. mais est-ce que tamit après bi ñu paree loolu extincteurs yi doy ña nga fa est-ce amoon na détecteur de fumée. parce que affaire yi tamit du lu seer loo xam ne ça coûte même pas vingt mille francs nga war ko mën a am euh, ci ci ci benn local boo xam ne bu ko saxaar ne nii mu déclenché euh, coupé affaire yi nga xam ne lépp c'est tout est automatique ay la mhm. ak yu demee noonu nga nga xam ne loolu noonu tey tey li may wax nii bu fekkoon côté boobu la défaillance technique ci côté boobu mu dem bu dee ci oto yi kasaalika ko noonu ñuy xool yi nga xam ne tey moom nga war a am yépp mhm. nga am ko am loo xam ne daf la koy daf. daf mais am na ci loolu nga xamante ne itam du yaa ngi koy ngàcc euh, nguur gi wala nguur yi. Hmm. mais am na ci loolu euh, responsabilité personnelle la jëm ci askan wi jëmaat ci yara yar yarin waat wi. moo tax muy euh, nguur gi. waaw mais c'est-à-dire que na nga xamante ne itam ci ci kër yi la tàmbalee day sañ sañ sañ sañ. saa non li muy kër gi moo tax muy nguur gi. <laughs> waaw mais yow mën ngaa jiite. waaw c'est-à-dire nga ñoo jiite. waaw yow yaay xool yi ngay teg. xam nga bu fekkee ne tey ñi ci kër yi. tey bu fekkente ne tey jii nii dañuy xaar lépp ci nguur gi itam du dox am na ci li nga xamante ne man ni ma gëm jàpp ko. Mm. mooy que ni développement d' abord. Mm. ci xel yi la te loolu ci biir kër gi lay commencé daal di yéeg. développement personnel cest dafay dafay dafay mm-hmm. jóge ci biir kër gi dem ci koñ bi. dem ci ci ci commune bi dem di dem di dem di dem ba au sommet de l'État cest à bu fekkente ne kër yi defaroon nañ fa ba mu baax je pense que ñi ñuy tànn ci wàllub njiib njiit ñoom itam dinañ am njubte gi ba mën a delloo askan wi li nga xamante ne bu boobaa jarul bu am police jarul kenn di mais mais juste justement cest à tey jii ne da nga gis comportement yenn ci mm-hmm. chauffeurs yi ci ci kaw tali bi nga gis comportement yenn ci ci ci ci ci receveurs yi ci ci ci ci ci apprentis yi mm-hmm. yenn ci ci même ci ci ci structure état yi muy muy ci service d'accueil yi dans les hôpitaux mm-hmm. Euh, ci ci ci même hôtel yi sa à dire que fi nga xamante ne tey ji yow en tant que sénégalais da nga fay dem war faa joxe sa sa xaalis wala nga soxla sa lëf da nga gis ni euh, dafa am dafa am benn soofantal wala benn ñàkk yar ki nga xamante ne xëj na am na te loolu nag moom mooy euh, une somme d'indiscipline bi nga xamante ne xëj na boo ko tegee Euh, chauffeur bi da ci jël wàllam accident yi bi. Mm-hmm. Euh, policier bi xëj na jël ci wàllam corruption bi bari ci keneen jël ci journaliste bi jël ci wàllam moom itam mu mu mu mu bind naka su dul noonu donc je pense que ni c' est un ensemble nga xamante ne xëj na tey jii nii c' est vrai que état am na ci benn part de responsabilité dafa war a teg des conditions pour lesquelles les gens doivent se nit ñi dañoo war a en tout cas joyantiku wante nag euh, père de famille. njëlbeen defar sam kër yow la war. mais léegi euh, oh, <laughs> bi résime bi toogee ak léegi. Mm. maanaam yaa dix jours. ngay dem ci service yi. est-ce que gis nga amélioration bu fekkee ne demoo ma baal la ko ma tontu ci bu fekkee ne yaa fay dem nga xool par rapport ak tali bi comportement bi nit ñi amoon wala déet. waxtu yàlla demoo fa. demoo fa. Mm. dama lay wax na la depuis résime bi di nekk. Mm. avant sax euh, nu mu ñuy tabaat yeneen DG. yoo xam ne nangam ña fa nekkoon a fa nekk te affaire bi tàmbali woon naa changé xam nga lu tax parce que ñi jiitu ñoo wane ne foowuñu nit ñi commencé di pointer heure terre bi heure bi nga xamee ne moom la daan xat du xat parce que nit ñi dañuy jóg secteur lay nekk. ay heure bi boo demee huit heures nangam ak nangam doo fa fekk mu lay xatal tey jii boo yeggee ñëpp a ngi seen bureau lan moo tax parce que dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw teg rigueur. fi ñu ko teg buñ ko teggiwut dañuy am résultat kon njiit yi la tegle bu jubee ba jiitu moo jub. non il ñu teg li nga xamante ni moom moo di sanction waxee mooy. état la parce que dañ laa jox lépp. alkaati yi ñi ngi taxaw bu nit ñi jalgatee ñu verbaliser leen jàpp leen wala naan bu alkaati yi jàpp euh, jalgatee ñu sanctionné leen léegi mbir mi jub. mais alkaati yooyu muy wax. Ibrahima alkaati yooyu ci askan wi lañ jógee. waaw. Ah. cest à que ci ci askan woowu ci la ñu màggee ci la ñu ci la ci la ñu leen mhm. donc euh, une frange la population la c'est-à-dire que bi nga xamante ne askan wi am na ko moom la ñuy am cest à que tey jii nii man mënumaa mënumaa gëm ni nit ki dina mën a defaroo alkaati dina ko mën a defar. ah bien kaw ci ci ci. ci sanction lañ lay teg boobu boobu cest am na loo xamante ne ragal la ak rus ak jomb. Mm. moom wolof la moo xëj ne moom ma ko gën a xam. Mm. Euh, c'est-à-dire que nit ki bu fekkente ne da ngay ragal pour nga defaru rek defaroo ko. mais bu fekkente ne da ngay jomm nag je pense que ni xëj na niveau bi gën naa élevé te jomm nag mënu alkaati doo ko defaloo waaye sa sa seen waajur dañu la koy mooñaale. alors bu ñu non dañu la loo réew réew di jaar ci tali bu wóoree ne alkaati day nekk fii wala caméra mi ngi lay jël wala nangam ak nangam. di nga te boo téye da nga bàyyi sa xel soxla woo pour pour sa xaalis di di dem ci keesu état parce que bu ñu lay dagg dagg la 6000 wala ñu dagg la 12000 fan ngay xaar pour sa 12000 ñàkk ko. kay ñoom la euh, Ibrahima Mm. Euh, cas d' agression yi bu làmb amee est ce que tamit duñu ci wax ngir yàlla ak yonent yi mënuñu nekk ci autoroute bi di gis ay nit yoo xamante ne ay pompe à gaz dañuy yor ci kaw tali bi il faut qu'on en parle également di këdd scooter yi jàmbur yi ñuy daanu bu ñu daanoo nga jël pompe pompe jël sa scooter yóbbu mbaa nga agressé tali bi kenn mënatul yor téléphone portable wala nga mën a yor loo xamante ni yow yaa ko moomal sa bopp damay proposé man maa ko gis man maa ko gis démb donc mu nekk loo xamante ni. démb démb. Mm. ci ci làmb ji nga xamante ni moom moo amoon. mais ci autoroute bi wala ci ci tali bi donc mu nekk loo xamante ni su ma lañ koy wax xaw ma nan lañ koy wax mais tamit jot na tamit euh, nguur gu bees gi am na liggéey bu bu mag a mag à ce parce que tamit euh, bu fekkee dañuy samp ay ay forces de défense et de sécurité ci tali bi te ci kaw tali bi la ñuy defee lu ni mel tamit jot nañu jël ci ay mesures. ah non problème la de. man moom euh, implantation wu dama koy. wax di ko waxaat arène nationale fi mu ko def ruutoon foofu man loolu dama ko yàgg di wax wax dëgg fa yàlla man gisuma nga ñëw au cœur de la banlieue euh, avec tous les problèmes sécuritaires qu'on a ak surtout zone Pikine bi ak foofu nu mu mel nu mu bindoo euh, géographiquement parlant jëm ci àll gi mu jege et tout nga bëgg faa def ab làmb man euh, franchement xaw ma ci yan critère lañ ko defoon peut que pour dund làmb gi la mu nekk au cœur de Pikine Pikine je pense que ni yàgg naa ko wax que ni catastrophe la et jusqu'à présent aussi amul les chiffres en parlent parce que bu fekkente ni combat am na foofu noonu euh, le zones environnantes kenn du daanaka doo sax saña yónni sa xale mu génn et ñi même ñi fay jaar sax dañ ko dañu dañuy dévier mhm. euh, loolu moom wax dëgg fa yàlla peut-être que am na ba pare nag kenn mëntu toj stade bi arène nationale kenn mëntu kaa toj li des nag mooy que ni gën a renforcer la sécurité tout simplement mais au-delà de la sécurité je reviens à ce que je disais tout à l'heure mooy que par rapport ak ñun la ñooy agressé ñooy ñooy def c'est-à-dire dem ba fu mu toll nii daal. saa naka nga jàngatee nekk ci tali bi liggéeyoo euh, sa la fër scooter am wala euh, Ibrahima oto otoom nga ne danga nga koy foqarti ci loxoom. te te te luñ koy seetlu ci làmb ji lay ëppee ci làmb ji lay ëppee mooy naka parce que dem nañu ba Sénégal tey jii bu làmb ñëwoon nekk suñu sport national. tey jii euh, nga war a mën a taal sa oto taal sa scooter dem seetaani ak sa xel mu dal. amatul léegi jaaykat yi nga xamante ne ñoo ci daan bénéficier wu sax ñemeetuñoo jaay parce que bu ñu génnee ci buntu làmb ji dañuy jël seen bagage lekk wala ñu yàq ko ci jeune boo xamante ni war nga mën a dem liggéeyi amal sa bopp. en tout cas population sénégalaise fépp fu ñuy daje obligation la ci état mu veiller ci seen sécurité yi nit ñi ak seen ay moomeel. ak lu mu mën a jar même bu dee da koy def ak perte profit wala dara nangam ak mm. nangam ci lu mu mën a euh, kii parce que bu dee dañuy tëgg lamb moom mm-hmm. te bu ñu paree ñu agressé nañ fa teg sécurité bu doy parce que bu dee am sécurité chaque fois dana dem ba di siyaat ñi nga xam ne tey ñu ngi fay ñëw di def ñaawteef mm-hmm. ba keroog ñuy xool ndax danañ mën a defaat arène feneen ak feneen. di mën a tëgg mais est xam nga ni affaire yi agression bi du du du ci arène bi kese. non moom la mooy li ngay wax si moom ah, ah, la du loo xamante ni euh, ci ci ci làmb ja fa mu amee lay amee. Mm-hmm. fa oto yi di jaar yëpp dem dañu obligé oto bi ñu duggoon xale góor yi di saaga ci biir oto bi. parce que nee nañ chauffeur bi na na na na na leen mbëkk parce que ñu tali bi et puis en plein jour. waaw dañuy dox xam nga problème bi mooy dañuy dem ba dañuy dox ci kaw bi te waruñ fa dox di baare tali wala nangam ak dafa war a am côté boo xam ne fa la ñuy yem pour jël oto mais dox def benn lox noonu di dox di dem. Euh, ci kii loolu am na lu war a mën a toog tey di leen ko xaar wala tey dajale leen fenn ne leen nañ xaar oto ñu ñëw fii ba bañ jël leen parce que li ko li koy def xam nañ ko loolu noonu bu ñu baree bay def benn mbooloo noonu dañuy am doole bu dee ñaar ñett ñoo ñëw tombé ak sa scooter dañuy taxaw kii la yooyu mais sécurité bi fi ñuy jaar ba ba ñuy dem dafa war a am foofu su fekkee ne sécurité bi mënul assuré wu ñu interdit làmb ji ba mën a def sécurité parce que tamit nit ñi mënuñu continuer ñu di leen di jël seen alal ak yu demee noonu man leen a rey wala yu demee noonu mais làmb ci boppam dañu ci war a taxaw hmm. sécuriser ko ba làmb ji continuer di tëggee hmm. mënatul nekk ñu xam ne foofu dañ ko fa war a jële dem xooliwaat feneen parce que sécurité nit ñi moo gën a doy lépp. Mhm. beneen bi mooy ñu xoolaat biais yi man euh, euh, suufe gi muy suufe maanaam yomb gi muy yomb ci koo xam ne day ñëw war nañ ko mën a def ku mu jaral nga dem nga xam ne bu boobaa loolu rek déjà dafay trier. maanaam affaire yi voilà xoolaat làmb ji mhm. xoolaat làmb ji làmb mbëri ndaw yi ñu ne leen bu ngeen dematee balay bay tëgg làmb mbër mu ndaw parce que mënoo ne six mille cinq cent licence te ñi nga xam ne ñu ngi ciy jariñu matuñ cent personnes loolu dañ ko war a xoolaat mm-hmm, mm-hmm. ba pare exiger waat suñu société yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di jàpp di def ci promotion làmb ji mais billets yi mais heure yi tamit doon waaw même heure yi heure làmb gi tamit làmb sax bu jaaree yoon heure bu nekk mën na koo am parce que làmb demoon nañ ba mu yeggoon foo xam ne heure bu